ñi def nañ marche Dakar def marche Ziguinchor def marche Kaolack seeti nañ kilifa diine yi seeti nañ sax ay kilifa aada yu mel ne Ruwaaw Oussouye pour mu def médiation kuñ ci yaakaar dem nañ seeti la looloo tax mouvement yu mel ne FRAPP ak Y'en a ci ak ñoom tey fas yéene cee ba keroog ñu ci am ndam parce que nag mënuñoo comprendre yow mi toog ci sa féex di liggéey sa liggéey nee naa la bépp secteur d' activité boo jël ci Sénégal sax activité économique courant bokk na ci commencé ko ci menuiserie métalique ba ka ca ne ci bureau ba courant koy dawal waaye yow nag nga nekk taal sa clim nekk ci sax ci sam féex di liggéey sa liggéey di am sa salaire te jox la tax nga mun a am sa salaire moom amul salaire loolu xel mun ko nangu ay doomi Sénégal di dee ci ay poto ci nawet bi ci biir ndox yi mu sedd mu taw mu naaj lu mu doon heure bu ne ñoom ñoo jóg di sacrifier seen adduna te amuñu luñ ñu yóbbu seen kër école a ngi ibbi amuñu lu ñu yóbbu seen seen waa kër yi laajuñu dara lu dul seen àq ak seen yëleef nekkuñ fi di ñaan nekkuñ fi di ñaanaatu nekkuñ fi di mais dafa nekkul dafa neexul ci xol la nga xam di ko liggéey depuis lu toll ci juróomi at ñenn ñi fukki at ñenn ñi ñaar fukki at am na sax ku ci dem retraite ñu jël ay nit ñoo xam ne ndax ci parti politique bi lañ bokk wala ay mbokk diw lañ ñu embauché leen ca kaw ba pare nag li ci gën a métti ne la yow yaa koy formé moom indil la nit yooyu nit ki yaa koy formé ci liggéey boo xam ne yow sa liggéey la moom mu nangu ko sa kaw nga formé ko jox ko sa liggéey mais loolu nag neexul loolu nag Macky Sall kañ la koy dakkal te fii la fi taxaw naan ay damay joxe emploi quatre cent quatre-vingt-dix-neuf personnes mënoo fexe ba saafara seen problème yëfu tey la ñoom ñoo ko tey wu nekk sës nañ parce que mënuñu marché boobu ba léegi négocier façon bu ne ñaan njekk fépp fu ne amul sotti liñ mën def mooy ñëw xiifal te xiifal musiba la xiifal musiba la xiifal du lu gën xiifal bugguñu ko xiifal ñaanuñu ko lu ci mun di am ci guuta ci responsabilité Macky Sall la nekk na ko xam képp ku ci dara dal muy feebar yàlla na yéex muy génn àdduna responsabilité Macky Sall la na ñëw saafara problème bu sénégalais yii fi ne mënuñu toll ci 499 nekk ci ay naqar nekk ci ay tolof tolof depuis ay at di xeex seen àq seen yëleef ñu leen di tànqamdu ak di di foo ak di leen di fontoo ak di leen ping pong na ñëw faj saafara jàngoro jàng jàngoro sénégalais yi kon nag xiifal bi fii ñu ñëw tant que amuñu li soxla mooy état ñëw wax lu leer suñ kaw teg kayit gu leer signature bu leer ci xiifal bi la ñuy dëkk duñ ko dakkal kon kàddu yi leer na.